إليك قد أنتبت في يوم الأحد عند النظارى من عيوبي أحد فامحو عيوبي وتقبل توبتي وتدني عاجلا أوبتي بالحق كاملا مكملا ولا تبتلني بما يسوء مسجلا بالحق كاملا مكملا ولا tabtali nii bi maa yasuu musjala wa habli yàlla madiya bilkitaabi wa bilhadisi darasa sawaabi wa habli ya sunnata wa sawaada wal alma bil adabi wal ibaada wa daqinil bidaata wa saqaawa wa jala wal kasala wal xabaawa وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مزقة ولا كآب بالله والرسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب والسفيع أمدا فصلي أفضل صلاة بسلام عليه بالآل وبصحب الكرام wajal yadi xaatimatan laka biki ataasira indakum kasar biki wajal faati xaalisan muwaxida wa sayiranni lil ibaadi mursida wa tugnini bika maa alkitaabi wal mutaba an jumlati l asbaabi wajal masiiri fawqa xajjin wa jihaad bil ajri wal yumni wa kun li fi tamaad wa dummani li man yutaaku lahum jumlata ma sa wa anta lakramu adoxna yàlla qoboola war ridaa wa raqini wa zidna yartiqaa kaniyama katabtu minhu abada wa jalsi waawi lii ridaanu abida واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من الركون لنجس يا رب لجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقد لي الفوائدا وليجد بمهو كل أودي ودنس بحق يوم الأحد وزغ جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني ولياب بحرمة اثنين مولد من قد سعد في الكونين كوني عبدك قديما وكما تحب وقفني العزاء والنقما وتثني به جميع ما مضى من كدر الدنيا ومن سوء القضاء وفي أدخلني بلا إخراج فيما ليختت بلا استدراج لك متى بي بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى وليب بحرمتك ثلاثا الفتح في الخيرات والغياثا وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت وتقني جملة ما حوى من ضرر وكل ما آباه ولي بحق الأربعاء ما فق مأروم بالدعاء ولي كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع ذي أمل فدقني في سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي ولياب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتامين والرسوقا حتى أبارك غدا توبيخا ونجني من كل ما قد خلقا فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي تقامة تدوم بسعام وتفنني فيك بخير مرسلين صل عليه وبخير منزلين عبدا مجودا مفسرا يقوم مع التلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متابع يقدر ولا مرح صالحا سعيدا ذا نجات وكاظما وعافيا ومحسنا كالآل وصبي لخير مدمنا وأجر سرارا دواما عني ولياب خيارك بالمن ونجني بأقي من مقتي ولياب حياة كل وقت بما تحب وجنبني ما يسد الدعاة طول الدهر وأدغنني بقعن الأرباب وبكتاب بقعن الأسباب وبنبيك مع الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتلاقه وبالصلاة علي عن تنازع البغاة وتنني ناري في وطني عن صعبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائد وجدني بالوفاء وسلم بالتي ربي عني عليه يا آخر حفيظ مغني جدت في يوم الخميس نابذا ما قد نبت في آخذا جددت نبذة سبعة لوجهك فكفى عني وسقني فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وارتجي من دواما توسعا في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا أي الذي ليس يموت ما لي أن الثناء عليك من سكون فكيف أسكت عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرضاء أنت ولي قد جئت بالآلاء أو كيف أمسك عن السكر وقدوم أنعمت بالخير الكثير يا أحد أو كيف أمسك عن الأذكار وقد حميتني عن الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكرم واجعل بقية حياتي بي واجعل بقية حياتي به في أكبر نداك عمر صعبه ودقد حاجتي ورد لي زمني بجاجه وردني لوطني وفي حضني وكفني الأعداء في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا وغرى من درر واليوم ما سده من البصر ولجعل العود لآل أحمد وسليا على الحبيب أحمد وآله وصحبه وتدليا بأنني عنك رضيت ربيا وعن حبيبك رضاء صافيا لا تقبض شكرا داعيا وتجي عني يوم الحسرين خيرا كثيرا وتزهدم ضري بجاك اليوم والقد وتري ونجني من خطر وغرر ومن غرار واجعل الأيام أحبتي يا رب والأعوام يا ربنا بحق يوم السبت امعيا بي وطيب وقتي وارزق يا إلي أبدا وتقني ضرر وكل داء وتقني الغلط والإفساد وهب لي الصواب والرشاد وعن يصرف كل ما أبيت في أبد بسوق ما استخيت إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وقلدا بسرايا في هذه الدار وتلك الدار بك مع الكتاب والمختار واجد أفضل صلاة بسلام وآله مع صحابه الكرام lu yàlla gërëmut la su fekkee ne yàlla gërëmul li ngay def nit ñëpp bu ñu maasee woon ci la yow la ak di la tagg ak wax lu baaxit xamal na du yow nit ñi itam wa suñu maase woon di la wax ab safaan te yàlla gërëm la gërëm li nga nekk du la wàññi dara kon nag na fexe rek ngërëmul yàlla di sëñ tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah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 آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يلى الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ۖ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وإلى والأرض وما بينهما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ۖ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ۖ إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستطيع وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 asalaamu aleykum asalaamu aleykum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 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أمنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهم يكون ف... أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما به يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن أي أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى وبشرى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله ۖ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله أكبر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 asalaamu aleykum asalaamu aleykum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 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يات بها الله ۖ إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى من وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله أكبر الله أكبر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 الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون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 asalaamu aleykum asalaamu aleykum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 واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي البريء وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي أيقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله ۖ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 allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum assalaamu aleykum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 الضالين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ۖ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاتيت أجورهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من كان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا من أبنائهن ولا ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقي من الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وما يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله الله له مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي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 أكبر وزدني العلم به والعمل وأدبا وثق به للأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كمل عقائدي وكمل فقهي كمل عقائدي وكمل فقهي فقهي مع تصوفي ورق نبهي kamila xaayidi wa kam min fiqi ma nga tasawufi in taraktu jalba bi ka wa dafaana xaalaban wa qalba ama ilayya suqda fa sukra wa ma xabata faridan wa sabra fa kayfa la askuru ma saaqal karim takarruman ilayya min xayri naim aw kayfa asqutu lima qad xabasa anni latifun bi rahimun quddisa bal iktafaytu billazi li dabbara an gayrihi wa minhu arju dafar alayhim wala ddaalliin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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا الناس الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات عدل قبل لي كل ما كتبت وما يفي معمما من نظم أو نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قطفا bi alihi ma sihaabi wa jangal jumlatama min yaata xayra amal bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa haqqaqa rajaa'i fi hadihi alqasidati wa ja'ala fawqa zanni wa rajaa'i bi jaahihi sallallahu taala alayhi wa sallama حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحان ربا كريما منه رجوت خيرا ورديت عنه بفضله أسأل الطهارة من العياب الدار والبسار نج دواما ظاهري وباطني يا مالكي وليجد بكامني ازد دواما عني الرزايا وتقلي المنن والعطايا أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب فتقلبها ليا حبا ورودا وكفني النواكيا لدواما حب كل مسلمين بالمتبع ورود كل مجرمين وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن لون تمام نجيتني في البحر من مكر الشرار وردني للبر بصير بالخيار عند رضيت شاكرا بقلمي يا خير مرشد وخير النعم منعمين من أما بابنا في الرزاق أبل لي مع الأرزاق عند الخذيب والواغج القحار أنت الوكيل المانع الجبار لك الولي بر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس واجعل يا الخير وكف عني عسر دابا وتقبل مني كل يسر مجا بجاه المصطفى ولياب علما وصدقا ووفاء يا رب لتجم وصلي بسلام علي بالآل وصحبه الكرام ليرتجي فيما مضى وما يجي بجاجه وعجلا فرجي اللهم إني أنهج تهيئي في البر يوم الجمعة في أول سفر عام جيشة بحسبنا الله ونعم الوكيل ثم أنهيت تهيئي في البر يوم الجمعة في آخر سفر